mbokk internet yi ñuy teewlu fii ci Univers Info TV Wassare Info ak Dakar Midi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax euh, di leen euh, jox seen wàccuwaay te nag euh, dañoo ñëw fi nga xamante ni moom mooy Rufisque Jokkul Lansar fi nga xamante ni fii la gone gi faatu démb ci marché bi amoon fa la ci stade Ngalandou Diouf amee donc ñu ngi ci maison bi nga xamante ni fii la dëj bi amee ñu fekk fii nga xamante ni moom mooy waajuram mu jigéen bala ñoo sori rek dañ koy bàyyi mu nuyoo yéen mbokk internet yi ñu sàgg dëgg ci waxtaan bi salaamaaleykum maaleykum salaam Aliou Ndafay. bi ñu tàggee la ki nga xamante ni moom mooy surtout tànk bu góor d' abord ñu ngi lay masawu li nga xamante ni moom mooy boobee nouvelle waaye yow en tant que yaay booy euh, mbir mi nga xamante ni xew na euh, ban jàngat nga ci am ak euh, sa ay sentiment jamono ji lan. Ah, la rek am na moom bu soxlaa moom ki mën si dara waaw mu ko rek. bete na naqari na tamit bay muñ rek mo fi da bay ka yalla rek yalla fee mu jëm ni gëna ko wala kay ñaanal rek wa ay version ci li nga xamanteni mom la génné adina ñen ñi nenañ ci stade bi la génné adina ñeneen ñi nenañ hôpital euh, lolu aussi euh, lan lañ ci mëna leen ko fofu ah, mo wax deug yalla man ma fa mëna leer da dama ko yëxa yëk man ci guddi gi ñëpp yëpp nañ ko mu yag ma koy soga yëk wax deug yalla fofu man ma fa dara lu leer mom wax dëgg yaa xam hôpital la gaañoo xam stade la gaañoo waaye man daa gis naa ko si bis boobu moom ñëw na fa moom bis mu gaañoo ñëw na fa si ay 11 heures ñëw na fa wax ak man am ko yónni woon si man ma ko ba taliba ba mu jël oto ñu tàggatoo dem foofu laa gëjee dégg ma dégg na lii am na loolu laa si kon dëkkoo woo leen ñoom nekkal fii si kër gi maa ngi pare sax mbaa foofu laay sëy waaye bàjjanam la nekkal moom. Euh, match bi bi muy am yëgoo woon ni moom dina dem stade. yëguma ko damay dégg nit ñi di ko wax parce que fii soriante soriante naa fee moo tax match bu amee sax du ma ko yëg sa yenn saa yi mu ñëwee daal suba gi daal maa ngi wax ak moom rek barankaan di ko tooñ naka bàyyi estaat ay xaw na parce que estaat wóoru mën a man daw ma damay seetaan rek waññeeku waat loolu laa jot a wax ak moom waaw ñu taxaw waxtaanoon ñu ngi ko yónni mu jël ko jubal dem walaa nga déggee si moom daal ñu ne rek lii am na. bi nga jotee nouvelle bi naka la la metti rek metti na mom metti mom ku metti yam kese man ma ko man ma xoj jóg suñu borom way metti na trop ah loolu laa mën wax metti na trop jonas bi nga xamante ni ci rew mi jamono ji ñu tollu gis nañ démb estat bi birki démb papa saw site bi démb yi ñu gis li nga xamanteni moy jey ji am fi ci Rufisque lan nga ci wax doy war rek xana ñu baye da comme xamu ñu lu fo la ñu jema baye da affaire def baye da estat bàyyi yooyu yëpp parce que xamuñu lii foo rek la waaw comme xamuñu fo nag ñu jëm kaa tëj rek xam ne dañuy doomu jàmbur rek lañ ciy rey seen yaay yi ñooy perte kese loolu laa sax. ki nga xamante ne moom mooy sa euh, tout tànk bi mu leer na kii dundatul nooyatul te tey mooy dernier jour bi nga xamante ne war nga koo gis lan nga yëg. xanaa metti rek dégguma la metti rek man ma si dara nag dafa metti waaye bu doon sama sago ndax dina fa toog ba si kanam metti rek man ma si dara nag waaye metti na lan nga wax ci moom yan jikko la yoroon ak de li ma xam si moom xam naa doo xam moom bariwul moom ma ne ko may wax ak moom sama dem sa coupé parce que booy wax ak moom waaw lay tontu waaw waaw am leneen lu waaw kese amul leneen lu si wax nag na bari kersa ñëpp respect waaw saa yi sama xam moom sax man maa xam ne sax wax ji may wax moom dafa bari waaye moom tontu danaa waaw rek waaw rek lay wax sëgg waaw rek loolu dara waaw kese loolu la xam moom. lan moo la gën a nar a manqué ci moom. métti hmm. na dégguma métti na te ma manqué si moom bari na trop ba sama sago mu toog tey jii ba wàccee bàjjenam bii soxna waaw mu dem ba yàlla ma egg situation bu yóbbu bàjjenam bii màkka kon màkka laa waxee chaque jour sax ma woowee bàjjenam màkka bàyyi doo yàlla yow jégalu jubluwuñ si woon lii donc c'était juste pour indi leen li nga xamante ni moom mooy naqar ak bi xew fii metti na yor sa doom maag ba toll ni dama message ngir rek daal di seetaan yi lii dal ko ci metti na ci bépp waajur buy seetaan rek waaw surtout sa taaw dañ koy master bu baax a baax di ko ñaanal yàlla may ko xolu muñ yàlla yërëm ko xaare biñ euh, mën a continuer interview ndax gis ngeen voilà xol yi tooy na lool dañ ko fi yemale rek di leen eh, di jaajëfal bu baax a baax te di ñaan yàlla Sénégal jàmm sax fi autorité yi aussi tamit xoolaat bu baax ni ñuy taxawee surtout ndaw ñi nga xamante ni ñoom ñooy ëllëgu réew mi war na am noo xamante ni war nañ leen mën a tàttagale bañ dem waaye lii jëmul kër lii moom mënul dem parce que violence fépp violence agression sàcc drogue yëpp war na mën a dakk ndax xale yoo xam ne seen yoon nekku si ñoom ñoo ciy perte te lii preuve la tey donc ñu ngi leen di jaajëfal di leen jëf.